29 ak L30 bi nga xam ne dafa nekk ci code électoral bi article yooyu dañu formel dañu wax ni carrément waruñu inscrire ci list électorale gi nga xam ne dañ ko condamné pour crime escroquerie daal di lim ay infraction te boo xoolee infraction yooyu ñu lim d'ailleurs diffamation nekk si mais ci alinéa 3 bi dañuy gis ni également législateur dafa wax ni ak yeneen délits yi nga xam ne bokkul ak délits yi ñu lim yaa ngi dégg te xam nga ni euh, en matière pénale euh, disposition bi dafa war a leer parce que juge bi duñ ko may mu mu am mu am raisonnement pour mën ko interpréter interprétation bu yaatu. même bu ko neexee par rapport ak campagne de désobéissance bi mu nekkee bu ko neexee sax man ci li ma jàpp mën na bañ a dem chambre euh, correctionnelle bu bu bu cour suprême pour di fa pourvoir en cassation. quelque que soit même bu ñu rejeté ak bu ñu ko bu ñu bu ñu ko bu ñu demandee ni cour d'appel dafa violer loi bi ak lu mu mën mënti doon man dama jàpp ne même avec une peine infamante une peine de réclusion bu gën a sévère bi situation am situation ñaari dossiers yëpp amul benn buñ ci mën a appliquer adapté ko ba rendre ko inéligible